bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwani wa tamkin ma baadu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci waxtu bu tedd bi ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa mu may nu jàmm te may leen ko waaye it mu yàggal fi sunu kilifa gu baax gi lool te may ko wér-gi-yaram ak tawfiq ba mu àggale yéeneem yi mu ci diine ji ak yi mu ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom xam nañ ne sunu borom tabaraka wa buñ seetloo ci biir alxuraan dañuy gis ay yu bari mu di ñu fàttali di ñu ñaax ñuy fàttaliku di fàttalee jamono yu nekk waaye it ñuy nafar dundub ñi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu woon ngir mën a jël ca seen dund boobee loo xam ne danañu mën a jariñ ci sunu diine waaye danañu mën a jariñ ci sunu àdduna loolu nag ay yu bari indi na ko yoo xam ne ci loolu la jëm wa zakkir fa zakkir fa inna zikra wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fa zakkir in nafaati zikra faqsusi lqasasa laallahum yatafakkaruun laqad kaana fi qasasihim ibratun albaab yooyu yëpp ay aaya la yoo xam ne day ñaaxe day soññee ci ñu war di fàttaliku dundub ñi ñu jiitu woon ngir man caa jëlee lu ñu jariñ ci sunu diine ak ci sunu àdduna xam ngeen ne weer wi ñu nekk mooy weeru muharram lañ ca waroon a wax ci ay santaane yuñ ca santaane ak ay jaamu yàlla yuñ ca war a def yépp waxtaane woon nañ ko ca ajuma yi weesu waaye li nga xam ne nag moom lañ ci war a dabaatal mooy xam nañu weeru muharram mooy weer wi njëkk ci at mi nga xam ne mooy atum gàddaay loolu nag xew-xew la boo xam ne wër sa romb rek lu dul ne dañ ko dañ cee taxaw war cee taxaw nafaraat xew-xew bu màgg boobu nga xam ne xewoon na ci weer wi ñu takke ko wala xewoon na ci at mi ñu takke ko ak moom eh, muy gàddaay gu yonent bi sallallahu alayhi jóge sallam dem Madina xew-xew boobu nga xam ne màggaayam li ko wane mooy soppiku gu rëy moo am ci lislaam goo xam ne musu cee am te day mel ni it amaatu ci ngir soppi gum soppi dundub jullit yi am fum jëlee lislaam am fu yóbbu lislaam rëy rëy boobu mu rëy moo tax jullit yi jël ko moom xew-xew boobu te am na xew-xew yu ko jiitu woon am na xew-xew yu ko mujj waaye ñu jël ko nag ngir rëyaay boobu nag ak jeexit jooju mu am ci lislaam def ko seen tàmbaleewukaayu waññi bu ñuy waññi dañuy wax nangam jëkk gàddaay ga nangam gannaaw gàddaay ga nangami at jëkk gàddaay ga nangami at gannaaw gàddaay gi loolu xew-xew yi bari na waaye boobu lañ ci tànn ngir def ko muy tàmbuleeb seen waññi ci at yi xam ngeen ne jëkk yonent bi sallallahu alayhi di jógee Makka di dem Madina moom ak saxaaba yi doon nañ dund ci Makka di joxe yonent bi nga yonent gi nga xam ne wala risaale bi nga xam ne yàlla leen ko yónni wala yàlla ko yónni mu ànd ko ak saxaaba yi ñu toog màkk googee di fa woote lu mat fukki atak ñett di woo waa Quraysh ci jaamu yàlla képp bañ ko bokkaaleeg dara te bañ a jaamu leneen lu dul moom waaye nag waa Quraysh yooyu yàlla taw feexulu leen ba wedd wala yàlla ñàkk leneen a taw feexal ba ñu weddi woote boobu waaye dañoo nuur ci seen weddi googee dëgër bopp ci seen weddi googee waaye bu ñu yeman ci lool rek waaye dañoo jéggi loola nag di lor yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam di lor saxaaba yi lor ju metti fitna yu metti ñu di leen ko teg dem ba àgg ak ñoom foo xam ne tar na lool suuf si li yaatu yaatu xatoon na ci ñoom lool te ci seen dëkk la ñekk ci seen i maam la ñekk ci seen i baay fañ cosaanoo defee fa lépp waaye ñu dem ba suuf sa xajootu leen ngir xatal guñ leen fa xatal ba loolu méttee lool nag sunu borom tabaraka wa taala ne leen wa ardullahi waasia fa tuhaajiru fiha suuf si yàlla si yaatu na foo mën a jaamoo yàlla jaamoo ko fa foo ko munta jaamoo demal feneen mu digal leen ñu gàddaay ngir sàmm seen diine ngir aar seen pas-pas bëgg ñu dimbale lislaam dem fa nga xam ne fa lañ koy dimbalee ñu gàddaay bàyyi seen alal bàyyi seen njaboot bàyyi seen suuf lépp seen diine jaral leen ko ñu gàddaay dem madina madinatul munawwara ba bañ àggee madina yàlla taw fexal leen waa madina teeru leen teeru bu rafet yaatal leen yaatal gu yaatu séddoo ñoom seen alal séddoo ñoom seeni kër ak seeni suuf yëpp ñu séddoo ko ak ñoom ak lépp lu ñu am ñoom ñooñu di waa madina ñu am teraanga ju toll noonu defal ko waa muhajirun yi ñoom ñooñu nag jëf ju rëy yooyu ñu jëfoon yeyoo nañ ca taggu sunu borom woo xam ne yàlla tagg na leen ñoom muhaajiroon yi ak ansaar tagg woo xam ne day soppi ko alxuraan yu ñuy jàng di ko jullee di ko jaamoo yàlla aw tagg woo xam ne yàlla da koo tagg ay nit waaye rëy na rëy goo xam ne dem nañ ba di ko jaamoo yàlla di ko jullee dem nañ ba di ko jaamoo yàlla di ko jàng ngir sàkku ci ab yool loolu nag lu rëy rëy la lil fuqaraa il muhaajiriin alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika hum saadiquun loolu mooy muhaajiruun yi ñoo ko moom tagg woowu waaye walladina tabaw tabawau ddaara wal imaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma uutuu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuxa nafsihi fa ulaika hum almuflixuun loolu ansaar yi ñoo ko moom kenn ku si ne yàlla tagg la taggu kawe tagg woo xam ne wu jara taxaw la ndax yu baree bari da cee nekk yoo xam ne eh, tagg wu ni mel eh, daanaka masi su ko am tëgg wu mu ne des na ko amati moom la Sëriñ Tuubaa di wax ci xasidaam yi wa saxbihi gurri man aqraanuhum sabaqu is baaduhum haajaruhu wal baadu ansaaru leen ay gaa yi ngi yoo xam ne raw nañ seeni moroom lu ñu rawee seeni moroom mooy ñenn ña dañoo gàddaayoon jóge Makka dem Madina waaye ñenn ña nekkoon ay ansaar teeru leen teral leen ba ñu xajoo leen kon loolu nekk na xew-xew bu màgg xew-xew bu rëy boo xam ne saabu at mi delsee dañ koy war a fàttaliku di ci war a jël ay bind di ci war a jël ay njàngale yoo xam ne mën nañoo jariñ ci suñu diine ak ci suñu àdduna muy xew-xew boo xam ne nag saa bu dikkee dañ koy faral di xis sa ya ca xewoon fam tàmbulee fañ jaar ba fañ àggee Madina ak xew-xew yaxu biir yépp téere taarix yi ak téere siire yi dañ koy nettali lu baree baree bari muy lu am solo lool ndax lu mën a xew rek ca loolu lay juddoo xam gi mooy waral lu ne waaye la ko gën a am solo nag mooy xew-xew yooyu yépp ni ko sunu borom waxee laqad kaana fi qasasihim ibra ibra ñu jëlee ci ay bind yoo xam ne nun ñii ci jamono mën nañu jël ci bind yooyee jariñoo ko ci suñ jamono ji ñu toll waaye jari jamono jariñoo ko ci suñ jamono yii di ñëw ci suñu diine ak ci suñu àdduna bind yooyee nag bari na lool waaye ba bokk na ci rek yañ cay tànn mooy bi ci gën a am solo te mooy nit ki war a xam ne jullit bi wattu diineem ak wattu pas-pasam aar leen mu gën a yey ci moom leneen lu dul moom alalam waa këram suufam léppam wattu diine ak aar ko ak pasas sa pas-pas moo gën a yey loolu lépp loolu bu ñu ko gisee ci ijra ba danañ xool yonent bi sallallahu alayhi wa dëkk Makka defee fa lépp saxaaba yi dëkk Makka defee fa lépp waaye ñu xatal leen fa ci seen diine mu jaral leen génn ko génn ko génn wacc fa seen alal wacc fa seen njaboot wacc fa seen lépp ngir aari seen diine foo xam ne dana fa mën a aaroo muy ma madinatul munawwara loolu bañ ko defee daal na nañuy joxe misaal mu mu rëy ci sacrifice bu nit ki war a sacrifice ci diineem sacrifice bu nag nit ki sacrifice ci pas-pasam bi nga xam ne moo ëpp doole ci moom leneen lu dul moom su baaxee sax lépp baax waaye su amee safaan leneen li gis lépp day yàquwaat loolu suñu borom tabaraka wa taala wax nañu ko ci alquran ne ñu na leen seen pas-pas te mooy bëgg yàlla ak yonent bi na leen jaral leneen lu dul moom lu leen tegal ci seen kanam na leen bëgg yàlla ak yonent bi jaral loola qul in kaana abaaukum wa abnaaukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaratun taxshawna kasaadaha wa masakinu tardawnaha ahaba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fa tarabbasu xata yaati allahu bi amri yàlla nee na li ngeen am ci àdduna lépp ci ay bànneex muy ay borom ay kër muy ay oto muy ay alal muy ay bokk muy ay jege ñaale yooyu yëpp nga xam ne ay intérêt àdduna la su leen gënalee yàlla ak yonent bi yàlla nee na xaar leen sama mbugal maa ngi ñëw ci seen seen kaw loolu ak xupp la ne yooyu yëpp waru leen a gënal seen pas-pas waru leen a gënal bëgg yàlla ak bëgg yonent bi laxasu fas yéene liggéey ci diineem ji yooyu yëpp da ngeen koy teg fële bu diine ñëwee bu pas-pas ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa dana waxaat ne amul kenn ci yéen kuy koo xam ne sa gëm yàlla dana mat lu dul ne dama laa gënal sa bopp gënal la sa waajur say waajur gënal la sa say doom gënal la ni ñëpp loolu mooy li nga xam ne ab jullit foofu la war a àgg ci pas-pasam waaye bañ defee loola nag yàlla miy fay nga xam ne loo ko defal mu fay la ko bañ bàyyee seen alal bàyyi seen njaboot bàyyi seen lépp gàddaay ngir seen pas-pas yàlla fayee na leen ko bañ jël siwaatee màkka ubbi ko duggaat ci biir ilifaat ko lañ ñàkkoon lépp yàlla sunu borom tabaaraka delloowaat leen ko loolu mooy mooy mooy mooy melow yàlla lépp loo ko lebal mu fay lu ko gën lañ sonnoon ci màkka ak lañ leen fitnaa loon ci màkka del siwaat nañ ko ba moomaa dëkk ba yoraat caabi ja di doxal di dogal di dindi ña nekkoon ñëpp nekk ci seen gannaaw ñu fayee leen lool ngir seen euh, sacrifice ba nga xam ne moom lañ defoon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

وأشهد أن محمد رسول الله حي على السلام الله أكبر الله أكبر cofeel googu nga xam ne saxaaba yi ridwanullahi taala anhum amoon nañ ko ci yàlla am ko ci yonent bi bam jaral leen lañ def yàlla fayee leen ca lam leen ca fayee tagg woowu mu leen tagg ci alxuraan delloo siwaat leen makka ñu amaat fa lañ ñàkkoon lépp mu del siwaat ci seeni loxo ba lu ko ëpp loolu wane na ne kon ab jullit pas-pasam moo ko war a gënal lu ne te bu ko defee it yàlla dana ko fay fay goo xam ne mooy ëpp ci moom doole lu mos am loolu la seex seexul xadim radiyallaahu taala anhu déggoon xamoon ko lool doon ko dund ba bam xamee ne sopp yàlla ak sopp yonent bi moo war a jiitu lépp doom adama moo ko war a gën a lépp mu daal di wax ne mahat mahabatiyal muxtaara sayidana xubbil maganiya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada yooye nga xam ne saxaaba yi bàyyi woon nañ ko makka jëndee ko seen diine dem Madina ba yàlla fayee leen ca la ma leen faye woon Cheikhul Khadim ne man yàlla far na ci man far na ci man loolu lépp lu ñuy bëgg ci àdduna ci ay koom ci ay njaboot ci ay doom ci ay lépp yàlla far na ko ci man ba bëggatuma dara lu dul yàlla bëggatuma dara lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ma am sax ñooñu ñuy bëgg ba bay dox diggante nit ak yàlla man def naa leen ñuy sama njot ci yàlla ñu sama ñu naa leen yàlla jotee naa leen yonent bi sallallahu alayhi wa muy ak njot ci ñoom kon kooku moom jeexal na takk ndax loolee ñu doon jaay yëpp di ko jënde di ko jënde àdduna wala seen diine jaral leen ko moom diineem jaral na ko loolu ba amatul sax mbëggeel googu moom it cofeel googu mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sopp ko yàlla ba jaral ko loolu lépp yàlla fay ko ci moom it lu mel lu mel ni la mu fayoon saxaaba yi waaye moom la ko fayee mooy fab cofeel googu dugal ko ci xoli mboolem nit ñi nga xam ne dañoo taxee nit ku texe rek dangay ngay bëgg Seexul Xadim du taala an te loolu bëggeel googa fa mu juddoo mooy bëgg gi mu bëggoon yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ak bëgg gi bëggoon yàlla ba jaral ko lu kon képp koo xam ne ab julit bu bu bu bu texee la rek dana bëgg Sëriñ Tuubaa dana bëgg eh, ab dana bëgg ab yëngutoom loolu nag la cay seere mooy lii xew bët démb rek bi sëriñ bi wootee ci Tuubaa ngir ñu eh, lu ci yàlla jàng alxuraan jàng xasida ngir ñaan suñu borom tabaraka wa taala ni ko nii wuy see boo ko xoolee te mën a settantal da ngay xam ne loolo payuk sëñ tub sëñ rek la bëgg gëm bëgg yàlla bëgg gëm bëgg yonent bi mu jaraloon ko lu ne moo dem ba àgg ci xoli bindeef yi mu jaral leen lu ne ba bu ñu leen wocc loo xam ne sax day nuru seen toskare day nuru seen alkande jaral na leen ko seen alal jaral na leen ko ci seenu ñaq jaral na ko seen lépp duñ xoolal si dara képp ko am ab seetlu rek xam nga ne mbëggeel googu moom du sago du sago soo xam ne nit ki ànd moom ñàkk sago rek mooy waral lool te ñàkk sago gépp dara lu ko lu may sëñ Tuubaa yàlla fayee bëgg gi mu bëggoon yàlla bëgg ko yonent bi di ci roy saxaaba yi yàlla fayee ko nit ñi ñu bëgg ko ba lépp lu mu woote donte seen bakkan da caa aju donte seen alal da caa aju mu jaral leen ko kon benn jullit bu nekk war naa xam ne bëgg yàlla ak bëgg yonent bi kenn du ko lebal yàlla mu di la fayee leneen lu dul lu ëpp la ko la ko lebaloon kon loolu mën nañ ko jëlee ci eh, gàddaay ak bi sallallahu alayhi wa ci saxaaba yi sacrifice boobu nga xam ne moom lañ defoon beneen biñ ci mën a jëlee ci gàddaay gi mooy ab jullit daa war a xam ne lépp lu ko gaar ne ci kanamam bépp situation bu mën a nekk dafa war a boole diggante wàkkilu ci yàlla jox ko sa bopp ak jël asbaab yi nga xam ne yàllaa ko teg ci kaw suuf ne bu leen dara gaaree jël leen sabab yii ngir mucc ca loole leen gaar al al al tawakkul wal axdu bil asbaab suñu borom tabaraka wa taala ñaar yépp la digle wàkkilu leen ci man xam ne man rek maay musle waaye jël leen ci sabab yi nga xam ne ci lay jaaree sama musul musal ci lay jaaree ñoom ñaar dàqante wuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam ne yàllaa ko yónni te yàllaa koy dimbule te yàllaa ko féeteeg moom di ko wattu lu ne yàlla lim ko jaral jaralu ko keneen waaye teewut ba mu demee bay gàddaay di jugee Makka di dem Madina mboolem sabab bu mu war a jël bu koy musal rek ci saayir da koy jël waxul ne rek yàlla dana ma wattu wala yàlla dana ma garde wala yàlla dana moo ma yónni dana ma dimbule waaye déedéet daa boole loola ak nag jël sabab yi nga xam ne yëpp moom la war a jël tàmbalee ko ca woo Seydina Ali mu tëdd ca lalam ba ngir yéefar yi defee ne mi ngi fi ba tey te moom génn ba dem boole ca Seydina Aboubacar mu waaj loo ko ay ay ay warwaay yu baax mu teel leen a waajal ca ca ca ca teel waaye dem ba nga xam ne bañ ba ñuy dem ca yoonu mu luyee mu luyee ab ab sàmmkat boo xam ne fu ñu jaar bu ngoonee mu jaaral fa ay ay xaram wala ay nagam yu jaar fa daal di far seeni seeni tànk ndax arab dafa xam jeexit jeexiti tànk fu nga ko gis xam ne tànk bii tànk bu diwa léegi nag fu ñu yendoo jaar sàmm ba jaar faake xaram raaf lañ la fañ jaaroon bu guddee fu ñu fanaane jaar bu xëyee jaar faake ay xaram raafal leen loolu lépp bëgg mucc rek la te yonent bi sallallahu moo ko moo ko moo jëloon kii yooyu dem ba àgg ci bañ leen bëggee dab ñu gis am xunti ma ak Abubakar ñu dugg fa ñu dugg ca xunti ñoom ñaar dugg ca xunti ma di làqu yéefar yi tam boobu mënoon naa wax ne rek yàllaa may sàmm waaw laa tahzan inna laa maana loolu wax na ko loolu mooy wakkilu waaye teew daa jël sabab bi dugg ca xuntima léegi ñoom ñoom ñaar ñu dugg fa ngir làqu eh, yéefar yi leen doon bëgg a bëgg a jot wa huwa zu tasatturi ma al atiqi al akbari fi l gaari mara nazari wa ma raaw min aribi dem nañ ba nga xam ne buñ xooloon rek gis leen waaye mënu leen a gis yàlla sunu moom tabaraka taala xima alxafidi almaanii yuxni an almadafii li kulli abdin xaashii bépp jaam bu ragal yàlla yàlla moo lay aar waaye nag da ngay jël sabab yi nga xam ne ci la yàlla jaarale kaarangam googu nga xam ne ci la ko jaarale kon jël sabab yi dàqoontewut ak wakkilu ci yàlla wakkilu ci yàlla ak jël sabab yi ni ko sëriñ bi waxee waalam bi anna al kasba laa yunaafi tawakkulan laa takku saa laa takku saa idlaafi xasbuka min tawakkulin an laa tara mujire risqeka siwa rabbil wara nee na nee na euh, te dàqun téwutig wàkkilu ci sunu borom tabaraka wa taala waaye na nga jàppee ne wàkkilu rek mooy nga xam ne kenn du maye ku dul yàlla kenn du musle ku dul yàlla loolu rek mooy wàkkilu nga xam ne moom loo mën a def ci sabab yàlla mooy musle yàlla ci boppam mooy musle fa zahiran takassa bimtisaala wa batinan istaslim ittikaala ci baatin moom na nga ci saayir na nga wàkkilu na nga na nga wut sabab yëpp yi tax a mujj na nga ko wut gir topp ndigalal yàlla yi li mu wax ne sabab lu leen waaye ci biir bi nag na nga wakkilu ci yàlla jébbal ko sa bopp te xam ne moom moo lay wusal moo lay musal li annahu rabata bil asbaabi afaalahu daban ala ala asbaabi ndax yàlla eh, sabab yi da koo takkale ak ay jëfam lu mu nar a def da koy wutal sabab du xëy rek wàcce ko mu wàcc waaye da koy wutal sabab su mu war a jaar soo jaaree ca sabab boobee nag sabab lu yàlla jaar ci sabab boobe musal la wala mu may la la la nga bëgg wa jaala al a xiina xasalat fi fialihi bi ixkaamin sabat kon loolu mooy war ab julit di dajale sabab yi ak di ko boole ak di wàkkiilu ci sunu borom tabaraka ko taala loolu moo mooy li nga xam ne moo war ab julit mu ko saxoo loolu nag buñ ko xoolee ci xew-xew bii jàll rek muy muy mbas mii fi am danañ ko ci mën a jëlee sunu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci sunu kanam rawatina Cheikh Mouhamadou Mountakha mii ni ci kanam yoon wi jàngal nañu ci dars boo xam ne foofa lañ ko jëlee ci gàddaay gi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nam jëlee woon sabab ya ak nam jëlee woon wakkilu ci yàlla foofa lañ jàngee loola ba jàngalaat nu ko nun ci ay jëf kenn ku ne gis na Cheikh Mouhamadou Mountakha bi bi mbir mi xewee ñaar yooyu yëpp kenn mënu ko ci wakkilu ci sunu borom di ko woo di ko ñaan di ko jéggulu di ko eh, eh, di toroxlu ci kanamam waaye nag jël sabab yi nga xam ne yëpp moom lañ digle ne mooy tax a mucc moom it mu mën ci ñëpp kon loolu lu am solo la loo xam ne ñun ñëpp war nañ koo jàngee foofu saa buñ dajalee ñaar yi rek luñ bëgg danañ ko am waaye saa buñ teqalee ñaar yi rek dañuy daal di am jafe ci eh, suñuy faj suñuy sajo ndax sëñ bi sëñ bi dafa dem ba àgg ci ne ñàkk jël sabab yi di ñaan yàlla ñàkki teggin yàlla la ñàkkee teggin yàlla la ndax lu tax muy ñàkkee teggin yàlla mooy boo boo jëlul sabab yi di ñaan yàlla yàlla bañ laa may da ngay defee ne yàlla daa daa déggut sa ñaan wala da laa mayut fekk da ngaa jaarut ci buntu ba buntu ba mu rax nañ ci jaar da nga caa jaarut bu ko nga ne yàlla mayuma loolu ñàkk teggin sa diggante yàlla la kon ka jël sabab ba defe moom rek kay musle amul soxla ci ñaan amu ci du ko faale faale wu ko am na ñoo xam ne foofu lañu féete sabab yi rek ci lañ sukkandiku ñooña teguwuñ ci yoon ña nga xam ne dañoo jël wakiilu bi rek ne ci la sukkandiku teguwuñ ci yoon wal afdalul jamu li haazayni maa wa in ata fii xilaafun subia lil jamci bayna alchari wal xaqiqa fa huwa istiqaamatu lfata xaqiqa da ngay boole ñaar yëpp nag nekk ci charia nekk ci xaqiqa boole ñaar yëpp wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fii sunnatin wa aqsita kon loolu bindi la boo xam ne war nañ ko cee jël war ko jariñoo ci dund lii ñuy dund nii war nañ cee jariñoo loolu te mën na mën nañ mën nañu cee jëriñ bu baax a baax ñetteel ba ba ca mujj mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu ci gàddaay gi wér al amaana wér jooxe wér ak nit ku wér te wóor dafa baax ci ab julit day jikko jullit joo xam ne du taxale ko moom benn yoon ab noonam ab xaritam ab jegeñaaleem ku ko sori ku ko bëgg ku ko bañ fu mu mën a toll rek day jëflanteeg ñëpp ci amaana muy kóor kóolute yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam na ne amin la tuddoon bu mu doon agut yonent wala ba bañ ko yónnee waaye biñ ko yónnee it amaana boobu daa continuer ci moom ba la cay tegtal mooy bi muy gàddaay di dem waa Makka liñ koy noonu noonu ba wër këram bëgg koo faat dañ ko faboon seen seen seen lu ñu amoon te bëgg mu mucc dañ ko koy dénk moom moo doon seen dénkaane quoi dañ koy dénk seen i bagage seen i bagage yëpp yañ amal solo dañ koy dénk waaye bi mu demee bay gàddaay néewul ñii samay noon lañ ñi ngi ma bëgg a rey naa yóbbaale li ñu dénkoon waaye dafa bàttale Seydina Ali ne ko boo xëyee kenn ku nekk ci ñii doxal kii joxal kii joxal kii kii moom moom lii kii moom moom lii kii waxul ne dañ may dañ may faat rek wala samay noonu lañ waaye kenn ku ne dalaa delloo la nga ko la nga ko la ko dénkoon loolu nag mu jàngal ñu ci leçon boo xam ne wóor ak nekk nit ku wóor nekk nit ku dëggu dee su ko jagleel ab noon dee su ko jagleel ab xarit dee su ko jagleel ab ab ab ab jullit dee su ko jagleel ab yéefar waaye foo toll day doon jikko joo xam ne day ànd ak yow jamono ju nekk nga mën ko ànd ànd ak moom loolu kon ñun ñëpp war dañ ko jàngee te yor jikkoy jullit loolu jikkoy jullit la jullit day jëflante ak keneen ku moom ci jikko ji mu yor waaye doo jëflante nit ñi ci seen jikko ñoom yow sa jikko ngay jëflante ak ñoom kon ku wóor googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko delloo loolu ñu ko dénkoon mu delloo ko ñun ñëpp war nañoo am wóor gu toll noonu ba képp ku ñuy jëflanteel ñu jëflanteeg yow ci noonu moo xam ndénkaane la ndénkaaneel alal la wala ndénkaaneel secret la wala ndénkaaneel lu mu mën a doon nit dénk ko war nga ko koo mën a jooxeewaat nan na ko dénkee woon ba nga xam ne da nga jooxee boobu ni nga xam ne noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala diglee kon loolu ay bind la yoo xam ne tuuti la ci yu bari yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci gàddaay ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunu diine man koo jariñoo ci sunu adduna te noonu moo baax ci jàng xissa jàng siira loolu moo ci baax kuy jàng siira da nga koy jàng ngir loo ca jariñoo ndax loolu rek tax ñu di ko nettali laqad kaanat fi qasasim ibra ibra ndax ibra faqsusil qasasa laallahum yatafakkaroon loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala yàgg nañu ci wax kon nee nañu suñu borom tabaraka wa taala may nu nuy nuy nuy nafar dundub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàng ba di ci mën a nit loolu loo xam ne danañu ñu a leeralal yoon wi danañu mën a jubalal ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wi gën a jub wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu من زنني غير خديم المصطفى فإنني أخدم بما اصطفى من زلني غير خديم المصطفى فإنني أخدم بما اصطفى